وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم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 mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo leen ñu di leen siyaar baax baax waaye jiite ñu yóbbee siyaar bi xalifatu muriidiyya di waaye noonu lañ koy ñaanale bépp xalifa généraux ko yàlla na la ci bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dañoo tamit mbégte tey ci émission cant gi ndax dañoo dafa ñaari ndaanaan yoo xamante ne kenn du leen président ci même réew mis ni Alaaji Fall xasida ak xale Sëriñ Tuubaa xale Sëriñ Tuubaa nag boo ko déggee ab cosaan bu yàgg la boo xamante ne xam naa dinañ ñëwoon nañu incha allah moom xale boo xamante ne nga dëkk fële sa dàngal ma am fa coow lool macha allah du ma ko jey nag waaye <laughs> xaw naa doy waaw loolu nag mbokk kon tey loolu lañ indiloon tey ci émission cant gi incha allah kon dañuy maanaam oto bu jugee gaaw day corné dañuy bàyyi seen Alaaji Fall mu daal di nuyoo mbokki internet Wassare yi ñu seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam ngi lay nuyu baax te di la ziyaara mm-hmm. Euh, di ziare baax mbooleem ñu ni seetaan ñëpp. Mm-hmm. waaye di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi. Mm-hmm. si Mouhamadou Mountakha Mbacké. Mm-hmm. mu yàgg fi lool te wér Mbacké. di siyaare baax mboolem ñi siiful télé bi yëpp. di siyaare suñu Abdou Diam mii ñu bokkal plateau moom itam. di jàmbaar lool. jërëjëf. jërëjëf si nga nuyoo mbokki internet am na solo xale suñu tubaab na lay baax. balay sax dila ziaré bu baax dila jox sa wacc way mm-hmm. non lañu ziaré mbolém képp ko xamanteni rek ya ngi sétane mm-hmm. ci wasar tv ñu ngi leen ziaré bu baax mm-hmm. ñu ngi jittal ci ziar bi khalifatul am serigne muntaha mbacke diko ñaanal yalla mu yag fi lool te wër non lañu nuyu suñu wasila cheikh modou fadal mbacke ibnu serigne mamoum saram ibnu serigne fallu di ziaré bu baax baax baax sunu wajuronu bayyi ci altu ndangal mo ngi koy jox wacc way bu baax di ziaré mbolém soppé rep di ziar wa ndangam bu baax baax baax serigne khadim jërëjëf jërëjëf xale Sëriñ Tuubaa kon mbokk yi di ngeen gars yi ñu nuyoo ñu nuyoo am na solo kon buñ naan oto bu jigee gaaw day corné dañuy bàyyi rek ñu bégg leen ci xacc ci Sëriñ Tuubaa yi Sëriñ El Hadji Fall bisimilah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما رديت عن ربي وربي رادي عني في أسوري بأقرادي جنب دريا لين المانع تنول خير جات الموانع براني الباقي من الأبناس بجاي من قيل خير الناس سيد لي في كل شيء بالرضا من ليقود للجنان القردا عداني العادي وسرت ساتدا من لا يرني خاليا أو عاسدا أطول الكتاب الأكرم المكرم لوجه من أقنعني عرم رمي لي بتلاوة الكتاب عزما من درر الدارين تلك النعمة إلى سوى ذاتي ونعوي صبا كل لعين خائبا منصبا كفى ثاني المستعصين الله بقدر لا إله إلا الله رعماننا رحيمنا لجسبا خيرا بلا سر ونعويا جسبا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 من زنني خير القديم المسام فإنني أحديم بالمسوام أديم إلى دور للجنام دار القرار والمنى والمنام من ظل أنه يكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا صاروا دلال والدلال تنخاد لي من ربي الخلال مدتها قبل اللدى لمبر مدحا ونا عن مثله كل ولم مدتها مدحا لدى ما ينبغي مالخوب وقفا زنبا مدحتو قبل لدى لمبر وليم مدحا ونا عن مثله كل وليم مني إلي قمة قد لا سمام روضته إلى الخيام حسمام ردي عني جيلاني علي الردوان الذي أحلاني رضي عني سبتو عبد القسام عليه رضوان يخالد الحسن رضي عني سبته تجاني عليه رضوان الذي يخلاني رضي عني خلفاء أربعة وسر ردا مقربين مطبعا من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني ردا ليس يريم جزاه يا موسى خيرا جزاء كما تقبل ووحد أنجزا صلاة من كرمه يا الخانيم على الذي دون المراء الخانيم صلاة من كلمه يا الخاني على الذي دون المراء الخاني آمين يا رب العالمين sëñ Tuubaa ñu ngi nuyu mbokk am na solo kon dañuy daal di dugg ci waxtaan bi xoos ci waxtaan bi si Alaaji Fall bu mu doon wax kan mooy ci Alaaji Fall kan mooy ci Alaaji Fall fan la ko fan la cosaanoo ak lan moo ko dugal ci jàng xasida ndeysaan am naa ci mbégte lool mhm. wax dëgg yàlla mhm. ñu nga feeñi jamono fële ci yarwaay géey mhm. dëkk suñ ma baabu géey yarwaay yarwaay géey dëkk suñ ma baabu ñu sëriñ tubaa seexal mhm. doonoon jàmbaar lool ci ñi toppañ suñ tubaa mhm. foofu leen feeñi jamono yàlla dogal bin amee juróom-ñaari at ñu jël nu sama waajuru góor yóbbu ma ci Sëñ Saaliw ma nekk moom diir bu mu joxe ndigal ñu jóge ca kër ga mhm. dem jànnatu mhm. jóge jànnatu dem ngaabu mhm. jóge ngaabu dem maxwaakaw jóge maxwaakaw dem xelkom lépp ci ndigalam ban ñi bisee nag yàlla dogal ñu soobu ci xasida yi yàgg koo bëgg nag ba nekkee ca daara ji daanoon ko foontoo yàlla dimbali na ci ñu nekk ci nab nabi ba suñ borom dogal ñu yegg waaye suñu yitte yëpp xasida la ma sa doon. Mm-hmm. gannaaw ba ñu ca daara ji daal. Mm-hmm. suñu yite xas xasaayit la. xaj ci Sëriñ mm-hmm. kon daal kon kon daal tamit daal xaj ci Sëriñ Tuubaa la. waaw amoo beneen métier kon bu dul bu dul bu dul bu dul jàng xasida. ah kay jàng naa téere juróom-ñetti at ba beru ci. Mm. Ah, man ko lool itam. waaw ah, yàlla dogal ma ko doon booleeg njàng mi waaye lu ci nekk rek. Mm. suñ borom dimbali na ma ci. ba lu nekk am naa ci cër. waaw yàlla dogal nag ñuy nekk ci xasde yi xasde yi itam dafa fiir mm-hmm. bàyyiwun mécc mi waaye day day ëpp doole loo ko boole rek moo ëpp ko doole ëpp doole loolu sëriñ bee ko ci def waaw yàlla dimbali nag ñu ñu ci nab na bi di di roy ñenn ci mag ñi mm-hmm. ak mel ni Sëriñ Xaadim Kebe waaye nag di ci boole itam suñu yëfi bopp mm-hmm. waaw ndeysaan kon man ko xaw a tàmm nag ndeysaan <laughs> sëñ Xaadim ñu ngi lay jaare loolu moom boo ma ci laajee dinaa ci sawar lool. Mm-hmm. waaw euh, xale sëñ Tuubaa nag yàlla daa dogal mi ngi ganee jamono fële ca altu ndàngalma mm-hmm. euh, euh, maa ngi ganee jamono altu ndàngal ma. Mm-hmm. fekk fa baax baax fekk ma fa fa laa jàngee alxuraan. ba wàcc alxuraanul karim. yàlla dogal sama waajuru góor ak sama waajuru jigéen yëpp. daara lañu yor di jàngale. maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaare. bi ma jógee ci daara ja ma nekk ci arab bi di jàngale. Mm-hmm. ba jëmm jamono. Mm-hmm. ma yàlla dogal méccum téer neexoon ma lool. Mm-hmm. ci laa fi bàyyeekoo dem Gambie jàngi métier. waaye nag xasida yi moom bi may bi ma ciy bi boobu fekk na ma ne ci njàng mi daan ko foyantoo sama waajuru jigéen moom ma ko njëkk dalal mi ma dikkee ci un jour dañoo mos a toog mu may wax ne ma jawartu bil furxaani rabbiyal muhin mu ne ma mu ne ma passeport àjjana la képp ko hmm. ko jàng dunu la laaj ci bàmmeel hmm. maanaam xam nga ne passeport boo ko yoree hmm. booy tukki moom daanaka bu lépp matee daanaka taarkaal la ma amoon ci nag maanaka mm, mbirum xale ma def ne am siw moom daanaka defe naa ñaari fajar laa ko laa bi ma ko mokkalee nag ci la ma ma tàmbale di ko woyantoo 2007 ci laa njëkk a tàmbale jàng jamono yi sëñ Saliou génne àddina mhm. maa ngi koy fàttaliku ci laa njëkk a téye micro jàng mhm. wax dëgg si yàlla ne mi ne ci tamit mbirum mm, sama sama sama mbirum xale waaye nag njàng moom bima gane se ma xamne man mi dama wara nek jankan mom deug deug deug deug lool mom 2014 la dikal ma xamne man mi ka dama wara baye lepp mhm. japp xesde yi teewul tamit sama metier comme niko ko sëñ Alaaji waxee mhm. téer laa wax dëgg yàlla yalla dimbali ma ci wax dëgg yàlla waaw dafa dafa and dafa xam nga teer dafa silvisé te jang mi tamit ci lool lay dox ah, waaw deug la waye teer day nekk lo xamante ni moom dafa mëna and ak jang mi waaw dafa dafa mën a dafa mën a ànd ak njàng ndax ndax boo ci nekkee tamit lu bëri da koy jàppandal ci njàng mi wàllum xam nga gis toirkal la jàngkat boo leen gisee toirkal dañoo a sañse te loolu moom boo bëggee dëkk ci ñaw la moom day xaw a metti waaye nag fi mu nii da ngay daggal sa bopp rek teg ci machine bi ñawal sa bopp génn ni nga bëggee nga koy daal di amee yàlla waaw noonu daal la ñu dikkee ñu ne ci xasida yi tamit mm. di ci sant yàlla bu baax ndaw lañ waaye teewul nag wax dëgg gis yàlla ñu ngi ciy sant bu baax fa la ñu dëkkee muy ndàngal maag li ko wër Mm-hmm. ñoo ngi sant yàlla bu baax ñu ngi jàngi bu baax a baax. nangal ma ko daal am naa ay soppe de. waaw sëñ Xaadim yow am nga fay soppe. <laughs> maa ngi ñëw maa ngi ñëw <laughs> ah, dugg maanaam si way Xaadim te ñu dàq Xaadim Kebe jàng nekk ci dëkk bi sëñ bi ñu ngay nga tànn Xaadim Kebe nag moom ngay rey. mooy njàngi moom ku ci nekk rek ak li naan ku ne sabaat liw na la xëy na njàngum Xaadim danoo gën a jàpp kan yeneen njàng donte ñëpp a a jàng na yàlla dogal na sax njëkkee woon ci moom ndax lu am solo laa maa ngi maa ngi nuyu sama waajuru jigéen di ko ñaanal suñu borom dolli ko wér wér baax a baax. amiin amiin sama waajuru góor itam noonu. ginnaaw lii lépp ñoom ñoom la ndax moom moomu jël yóbbu ma ca daara ji. Mm-hmm. yóbbu boole ma ak Sëriñ Saliou. Mm-hmm. ba sëriñ bi def ci man li na ci man. Mm-hmm. ba ma ñibbisee itam waajuru jigéen moomu njëkk a ñaanal ci xasida booba maa dama fekk muy julli ma ne ko damaa bëgg nekk jàngatu xasaayit fekk daayira laa jóge di waayonto benn air. seexu naa laam. ma ne ko ñaanal ma jàngat xasaay laa bëgg a nekk. Mhm. jamono di dox ba may dem di jàng ci guddi yeeg di dem di tournée ci. Mhm. woowaat ko benn bis di ko naan ko fàtte nga ba ma lay ñaan looloon. Mhm. ma ne ñaanoon na ñaanaloon naa la ko ci sa barke Baye. ak Sine Saliou ba nga demoon. ma ne ko loolu de man na maa jàllale fu ne. da lay jàllale. bi ma commencé roy Seexuna Laam boole ko Amadou Ndiaye maa bi. moom ëpp war na koo xam. di ko roy ba mu yàgg ma bàyyi ko. di roy Xaadim gi. yàgg ma bàyyi ko xam nga booy dugg ci mbir moom da ngay ah, ah, xool rek waaw ah, léegi bi yàlla dogalee ma dem ba ci kanam nag mhm. xaadim kabe it air bi neex ma lool mhm. ma gën koo jàkku mhm. mu gën a oyof ci man ma daal koy jël te jamono boo ñi roy xaadim gay dafa bari ma daal comme xaadim mu xaadim kabe moo gën a doon ndaw te njàngum ndaw mi mooy gën a tox xaar ma jël xaadim kabe ne ci nag di ko jàng sama baat nag waaw mën naa jàng nga jàpp xam ne air bi airu xaadim la waaye nag da xam ne sama baat la. Hmm. ba boo ma déggee feneen rek da xam ne kii Alaaji Fall. Hmm. waaw waaw te xëy suñu Tuubaa yow. Hmm. yow yow jàng naa dégg sab jàng dégguma ngay roy kenn. même boo yéen seen airu bopp ngeen di bëgg di jàng léegi doo leen tabbiya ngeen bëgg jël seen airu bopp bëgg koo way léegi doo leen tabbiya comme Alaaji Fall mi ñu def ah, tabbiya xaadim kebe yéen booy ngeen woo jékki-jékki bi fël bu nekk de. ah Mbacke Balla comme ni ko sëñ Alaaji waxee jankat bo fi gis tey ji am air bopam mom roy na mom man dama roy ba bëgg a dee xam ci kurel la ndike mais royoo ba yeewi la. xale si waaw nga fof la jëm ak yow. maanaam gis nga air bi fi ma dikkelé comme ni allah Alaaji wax ni gis nga air bokay jang diko jangé ko sa baat. waaw surtout ma ngay jang ci programme jang mi yag sa baat bu tangé rek li nga mom dang koy jël te wax deug ci yalla nak loy roy roy roy roy ba sax miri bop la. waaw ah dang ko téye sa fukki loxo juroom ndax tak nak ma suma sañon fim tolli man señ Moustapha sek mom la mu joroy wa turóom mi tey jii fu mu ñaan señ Moustapha tey jii suma sañon tey jii bëgg dem ba ak ñu naan Abdou cham bu doon dama continuer di roy ba da naan boy bi roy dëkk ndangal ma wa fim tolli sama air bop mom ma way ñu naan señ Abdou cham ca ndangal ma mhm. wax deug dëgg yàlla yef mom sa yef bop da cey neex mais Moustapha Seck tek amna ko dakk way de wa bu baax sax bu baax am na ko fi nekkoo ko dàq way mu de. <laughs> bu baax waaye nag yàlla dogal na. tey jii buñ ma uh, ñu bëri nag wax dëgg yàlla. tey bu buñ demee ba tàmbala ma ràññee loolu am na ñoo xam ne buñ may jàngaloo air ma ñëwee dama ciy barkeelu jëm jël sama yëfi bopp. Hmm. waaye Moustapha su ma koy jàng tey jii boo déggee la waaye foo déggee kàddu gi di nga xam ne sëñ Abdou Thiam moo am. ban air Moustapha Seck nga nga nga nga jàng. air Moustapha Seck moom Serigne Saliou bi laa njëkkoon di wayantoo irham jamiya yaramal la ilaha illallah alwara binde file la ci yan mu ne bala ay sam cey seexuna seex saaliwum laabiram bëgg nga waw balla ay sam cey seexu naa Seex Saaliw kuy ndaw nu sant ko ko ndax moonu defar budul ko la yàlla wax ci alxuraan kon jooy ba aywa ah, man heure oh, Xaadim Kebe nga njëkk a nga nga njëkk a mën. heure Xaadim Kebe. waaw ah. ah, waaw heure bi mu ci njëkk a man na njàngu awla xam na ah njàngu aw waaye nag rajas yi tam bokk na ci. mais Xaadim Kebe da mën ci rajax de. ndax hmm? Xaadim Kebe daa mën côté bépp de rajax jàng aw lépp la mën. waaw lépp la mën moo tax it eh, lépp la roy ci moom bàyyiwuñ ci dara. wala ñëwal ma ci rajax bi yow yow yaa Xaadim Kebe te rajax ñëwal ma أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سكري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بمدادي لك سكري لجنة بمدادي لك سكري على جميع الآلل سقطوا لدي جنة ساسدالي لك كل يا سلبقا سبخائن آية منك سرمدا يا حمادي عبلي الدار أنا دوم مسرورا لعبيبي عليك احتمادي منك أبقي بلا انتعاء سلامي واسعا للملا الكرام الحباد دائم مكتوب لرضا بعيالي ولتبصر خير الورى بمدادي إن سجودي والعلا والجمال مالك الملك ذا العدى والكمال لا يقل بسكوري وهو سكور وبير تسكر بالحلال ليسق العلال دون عساب وبقد يزيل كل الدلال عدم الضر عن جنابي داما وبخير يجود لي سا li ngay way xadim ge kebe ni mom ina yeen wala waaw bu baax dama koy faral di aw ci lu ah waaw waaye léeg-léeg ma raar itam mais fixé wu ci kuréel bi nag ah plutôt kuréel même bu ñëwee ndakaaru ci plateau damay ak léegi yow si xale suñu tubaab yow damaa doo dëkk fu wéet léegi naa amoon na foo dëkk côté xaw ma vers fois xaw ma te yow sa kër mbokk la ñu dax nekk appartement nga doo fa dëkk bi tax lool waaw man sëñ Xaadim yàlla daa dogal daa xasa daa daa daa am luy saf ci sama deret te man fi mu doon du ma ko njar ah. waaw noonu moom fu ma dëkk moom xëy ba suba ba ngoon dégguma allah dégguma wasalalaaw moom moom ak lu mu neex neex damay daan toxoo man ci bàmba ji laay dox wax dëgg si yàlla mais da ngaa dégg verse waaw ma demee ah? samay bagage dem géeja wey bu daayira jotee nga naan café daa sol sa kii daal dem daayira <laughs> daal foo dëkk bi dafa dëkk moom na moom su ma xëyee bu ma bu ma xëyee nekk sama waar ndax yéen maa ngi ci métier ba léegi wala commerce bi ndax damay ñëw damay commerce suma ma yee bat ba cinq jot su ma fekk ku may liggéeyal sax loolu laa lay wax man jànkatu xasida laa ah. waaw ndax nag sëñ Tuubaa ko wax wa jaxla ful urufi fawqa kulli hamalin mm-hmm. liggéey boo man di yow jànkatub xasida mm-hmm. ak liggéey boo man di am na nga jiital xasida yi li la xasida yi mënal dara mënul la ko mm-hmm. ak Seexul Xadim mais mais dafa am mais dafa am patama ne saay dañoo xaw dañoo xaw a tàggoo xasida danaan saay liggéey tamit waaw ma bàyyi yow dama bàyyi damay bàyyi métier mi ci man la ne di du ma neexal kenn koo yaakaar yàlla la yaakaar dinaa dajeeg murit boo xamante ne dina ma ci mën a dina mën a lool fu ma moom timis moom fu mu jotee wala dimanche moom daayira bi ngay dem daayira hmm. yaa moom wala tey jii lu ci demee ni euh, àllarba ak yooyu noonu bu la ko mënta may cinq heures nga wàcc wala tey jii timis nga teel a wàcc mën a dem daayira hmm. damay ku ma ko nangoo rek. xam laa bëgg diwo diwo yéen ñaar diwo ndax yéen da ngeen a da ngeen a déggante yéen la <laughs> dégg moom si yéen fekk baax man fekk naa ay ba Abdou Diab ne der la ma koy dégg mais diwo laa bëgg ngeen ne ko noonu ngay diwo nag waaw waaw moom ne leen ko demante mo yeen nañ way seera xaar rek tax joxante dugulen ci isa penda parce que kadde damel la aja aja aja aja dem leen aja damal damal Syekh Ibrahim Fall ya tax al jannatu Syekh Ibrahim oh. ya nu xamal ñun doomi jaar proxane ku la gëmul ba faatu Seex Ibra Faal Faal la sukaabe ngoone jeey ise jeey faati penda Seex Ibra Faal ma fas ko muslu seytaan rajiim Seex Ibrahima Faal إلى الجنان الله يا الله موي كريم شيخ إبراهيم أفال شيخ إبراهيم أفال سري موسى كنينة شيخ إبراهيم أفال دانا موسى كمانا mu ne ma seen jant taxul nga di ko laal bari na ku toog Cheikh Bamba toog nga di ko xool mu di la xool te gisoo ko Cheikh Ibra Fall nee man dongu maa xool Cheikh Bamba li ko dale fii ba Dakar jàll gannaaw yoonu saxaar mbër mu fi rëy ban naan Dakar Cheikh Ibra Fall ngay laaji pexe Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibrahima Fall sa ñaan yaa tax ba murid yi jëriñoo ci Seexu Bamba ña la jiitu xamu xatal nga say noon Seex Ibra Faal ku la bañ du yaatoo ci àddina ji muy xëy di faatu Seex Ibrahima Faal Cheikh Ibrahima Fall digenté njukki ak njamatil Fall dan dan dajé nani butel ya tax ñu tuub ko ca teel Fall ñaga yaar yi pexe Cheikh Ibrahima Fall ba mu ñëwé mbacké bawal dem na wa kër gi nan wal nay soqu tey roti di wel liggéey di ko joxé lu bamba wax mu dal dinaaw fuure jure je sant naa ko da ngay dellu gannaaw jàngil murit du pexe lot suga bengoone jeey isa jeey faati benda dammel fu njoogu dammel de ci law dammel sama yaaya faal seynu aboo balla mam yaay aboo daar daare faal njaga seex ibrahima faaleey maam sera faal noon yaa ko génne néegi mbakke baari sandar ma saankona ndar ngay jaari mu jaari ndar ndar ba ga mel ni daaru koy jàllax mu wéy ndakaaru soo xalamee ñaari guddi ndakaaru ba digg wax ja ma wax nga waaru sëriñ bi nee na isaa sakartu saalikal mabiita wa saalikal amira wa saboota taarat ilal jihaadi bil armaayi nafsi walakin saba anil maayi te fetal Mbàkke rawaas ma jaasi du dee bàyyib Sëriñ Saaliw di wéy ci naasi Seex Ibra Faal yaa tax ñu tàbbi aljanato Seex Ibra Faal yaa nu xamal ñu doomi jaara Poroxaana ku la gëmul ba faatu yawmal xiyaame du tàbbi aljanato sant si Ibra sant Seexu Bamba ak Muhammada yàlla gërëm na la ba la sañ-sañ ngay falli falli ku neex jar ay faal yaa gis la bur làq jël lawhul mahfuus ak lawhul maknun yow te loo noos yow la sin Bamba ñang-ñang murid ye waa la ñag yàqu faal yaa moom yaa moom rijaalullaay yay fanaan ci pey yàlla ñi dur xuraan la sëriñ bi tànn def la jëwriñ àddina ak alaaxira ku lay bañ yow la nu jébbal sunuy mbir ca bis faral sunuy bàkkaar te wan ñu bamba Cheikh Ibrahima Fall bis ba Serigne Touba fanaane lambinaas bég nanu bég moo xam ne jooyloona France Cheikh Ibra Fall bis ba Serigne Touba fanaane lambinaas bég nanu bég moo xam ne jooyloona France Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall bayu Serigne Mortala Fall maami Serigne Mudu Aminata Fall Cheikh Ibra Fall la sukaabe ngoone jeey Cheikh Ibrahima Fall damel Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall baabul janna Cheikh Ibrahima Fall baabul muridin day sa kula gëmul dara xamul faale waaw waaw ndax yaa saytu mbooleem lu nuy wute yaa nu wan leeg yaakaar jaam ñi seexul xadiim Seex Ibrahima Faal yab sa xaj faal bàyyi góor ñu faal. xale yi xale yoo xamante ne dañoo mën a jàng lool bëgg li ñuy def lool lan moo tee maanaam ñi nga xamante ne ñooy boobu doole yi ñu jël leen maanaam di leen encadré rek comme li nga xamante ne maa ngi gis ay maa ngi ñëw bëgg ñëw ñu point boobu noonu xale yi nga xamante ne dañuy jël di leen woyloo te di leen woyloo loo xamante ne maam léegi jamono yi moo jaxase dëkk bi ndax ku jug way wayu gaaruwaale ku jug way way boo xamante ne kii mënu koo dégg léegi istat yi léegi wayu gaaruwaale rek a fi am lan moo tax ñu jël xale yi nga xamante ne ñooy tudd ko tu yàlla yi di jàng si lu baax xam ne dañoo jël yoonu baax ñu mën leen a jàppale mën leen a tabbee ba am ci oto rafet yi rafet yi nga am den wayloo waaw wane am ko di daa a jekk ko noonu bëgg la jël di leen wayloo waaw leen ay wax yoo xamante ne maam déborder la waaw loolu moom yàqut ak jamono ji rek mhm. ndax mujj jamono la nekk li suñ Tuubaa daan wax mhm. tënk ko ci xës dëgg aaxiru samaan lu ci bari waxoon na ko lii lépp rek mhm. waxoon na buñ ci yegsee dangay jàpp ne Sëñ Tuubaa tey la bind xës dëgg waaye nak ku ci bëgg te bokk do ci bokk. ndax yaakaar naa li doon wax rek. barki hmm yalla dafa dogal doone julit hmm say mam doon julit nga judd ci jullit mag ci. le gën mooy hmm mam livre julit livre julit nak moy alquran hmm ay bo jëlé livre jambour la ca nek rek la lay jangal bu ngeen bokku nak jikko mm-hmm. faaw da ngay jël jikkoom rek mm-hmm. te jikkoom bu baaxut tam boo ko indee sam mu yàqu mm-hmm. noonu la dem boo fekkee ne da ngaa jur sa doom mu toll ci juróom-ñaari at la gën mooy alxuraan jiitu ci dënnam comme ab jullit la bu dee leneen nag moom la nga xamante moom moom ku ci nekk am na sab téere waaye bu yàlla dogalee nga jiital alxuraan ci dënnam fi muy amee juróom-ñaari at ba fi muy amee fukki at ak ñeent foofu ak mbon xaju dëgg te bu ñëwee yàlla mën na koo dimbali mu teg ci yoon. Mm-hmm. ay bu fekkee ne dafa am juróom ñaaraat nga dugal ko ci. Mm-hmm. nasaraan wala xam loo ko yoo xam ne ay caaxaan. Mm-hmm. saa bu màggee loolu rek lay xam. foofu la toll nag bu yàlla dogaloon kilifa yëpp maasa ji. ku sa doom toll ci yenn année nga yóbbu ko ci alxuraan. yàlla mën naa dogal réew mi tegu ci yoon. ñu mujjee judd ñu ñu ay wayeek ay wayu gaaru fi mu jamono yi fi na xam nga loolu yow fi mu ne. fi mu ne looy wax war yéeme na lool waaye nag man dafa am foo xamante ni dama koy lancer di ko lancer képp kuy jànkatu xasida ñun ñu xam liñ am ñun xam ne dañoo riis ndax euh, mbooleem koo fi gis tey ji mu nekk di ñu koy tudd ci ci saayir tey ji moom bu faatoo moom moom mu xalaatut moom ñu tegal ko bandam moom hmm. moom ñun lay wo ak lu mën a xew rek ñun jànkatu xasida yi ñoo koy gunge ci biir bàmmeelam waaye nag man dama ci am way gu toll ni xasida yi moom ku ko bëggutoon fi bi ngay nekk ci jamono boo génne àdduna moom dinaa am ak maandu teelu tel moom wax dëgg yàlla duma la ko yëkkatil foofu laa ne laax bi moom mën naa ñàkk waaye am na ci ñoo xamante ni tey jii maanaam danoo xañ na danoo danoo danoo danoo liñ ko li ñuy tuddee réer danoo réer waaye xasida yi sëñ Tuubaa yi ak li nga wax tey jii muy kitaabullaahi di téer bu yàlla bi di al alquran mm-hmm. maanaam lim man ci doomu aadama mm-hmm. donte nasaraan réew mi dafa nekk réew moo xamante ni mënuñu ko fee génne faaw gone yi jàng ko ndax réew mi moo ko laaj waaye ndaw bu doonee ndaw man bokk personnellement sama doom moo ko amee li ma koy jëkk ubbeer mooy maanaam ab dënnam mhm. alxuraanu karim njëkk ci laneen lu a fekk si alxuraan ji alxuraan ji moom day jiitu yéen tamit yéen jàngkat yi tamit man a lancé benn message mooy yéen tey waykat bu ba léegi nga sa a koy gunge waaw léegi doo leen bàyyi léegi ay waaw xam nga loolu daa yanul maanaam moom sax du ko nangu nag wax dëgg yàlla. mooy non non argent argent xale suñu tubaab man maa mhm. maanaam woykat gis. Mhm. maanaam muy way bu faatoo léegi du woo ay moromu du ñu woo ay moromu musicien am du ko sa bàmmeelam. waa xanaa gunge ko waaye amul yëkkati de moom wax dëgg yàlla comme yëkkati ko waaw loolu amul yëkkati moom. non yëkkati ma dama am de. ah sëñ bi dañ koy ba ngay ah, bi loolu moom. ah ku ko nangu de. ko ne bëgg ko wala daaw doon yitteem. waaw subaa bu ñu ko defalee mën naa bañ am njariñ ca moom waaw sànq maa ngi wax ci biir mhm. jar na mu nekk ci wala yoon mhm. amaana buñ ko jàngalee suñu borom jéggal ko ndax mm-hmm. Mm-hmm. xasida muqaddimatul am daa dañ wax lu yéeme loo xamante ni mhm. boo ko jàngalee ku faatu bu lam niw rombee nga koy jàngal ba yegg ci bayit bi naan yóbbaas sirukal baax yi bi xatti wa in kuntu an ardi madinati sana mhm. nee na même bu mës a jaam yàlla sax mu jégalu suñ tubaa toll na foofu digganteem ak borom daa bëri yéen maa ndax xam nga suñ xaadim li ci ëpp solo mooy bëgg gi man am na ci woykat yoo xamante ni wax dëgg si yàlla tey ji euh, dañ ko mën naa taxuñu ko euh, taxuñoo siiw comme siiw gi ñuy wax waaye tey ji yàlla dogal na bëgg nañ man dañuy déglu samay son dañuy déglu lépp bëgg nañ xasida yi bëgg goo xamante ni yàlla tere bu fi jóge woon tey ji man man naa euh, wax dëgg si yàlla moom dina ma jaral ma ànd si seen borom yëkkati tekkil leen xasida yi ndax xam nga la la dañ koo bëggoon dañ koo bëgg waaw waaye nag man ki nga xamante ni yëgut li ma ne xasida yi man li nga ma gis ni am naa way gu toll ni fi mu toll nii wax dëgg si yàlla duma waxtaane kenn man suñ tubaa laay waxtaane ak xasida yi mm-hmm. waaw ndax fi mu am na ci ñoo xamante ni tey ji wax dëgg si yàlla tey ji rarement nga gis waykat bu toog di waxtaane jànkatu xasida wala am na ci nag mm-hmm. mais bariwul moo tax ñun ñii dañoo riis dañoo xam war a xam ne ñu yor wallahi azim jànkatub xasida dafa riis gis na sëñ Tuubaa dañoo fonkoon lool sax nag ñun ñun ñun ñun ñun kunu kunu ku nu yab rek ciw dox ci ci ci doxin la wala waaye wallahi azim jànkat jànkat bu dëggal di ko defee ni ko sëñ Tuubaa bëggee wallahi azim kenn attanu ko mais léegi nag si xasida sëñ Tuubaa mhm. léegi dëgg dëggal boobu nga wax noonu laay ñëw léegi jàng ki jàng mi léegi ni ñu ndax dañ ko def bëgg dañ def way di def ay piano mm-hmm. ay ay piano ay lépp la ñuy teg léegi waykat yi dañuy wax ne dëgg yàlla tax jàngkat yi fi mu moom ngi ñu ngi wëbati waay moom. loolu moom maa ngi koy gis Mbàkke bu baax sax nag waaw bu baax euh, dafa dafa dafa li ma la ciy bëgg a rek mooy maanaam xasida yi ku ci nekk tey jii ak ni ci duggee waaye daa am ñoo xamante ni folklore bi lañ topp mm, Sëñ Tuubaa nag am na lépp loo ci soxla rek moom moom la lay jox. Mm-hmm. waaye de man personnellement man sëñ Abdou Thiam xasida yi li ma ci mébét mooy maanaam di teg ga euh, euh, oto bi teg rajo yi ci kaw ànd aw awkat yi di di tourné. yow dafa yéen a programme wul. maanaam xasida. Mhm. baatu xasida xasdu la xasdu. jubluwaay. Mhm. loo ci jublu suñu borom fekk si la ci loolu. àdduna. yow da ngeen a programme la invité wul maanaam li tax ma ne la du ma fa dem mooy xasida yi ndëndum buur la. li ko tegal baax maanaam buur dama ko fiiree keroog. no am solo maam buur day foor am ndëndëm mm-hmm. buur nag buñ ko xamee mooy suñ tubaa gën ci jublu mm-hmm. foor am ndëndëm bam mu jàkk mm-hmm. galam jox na ne demal nga tëggu nga dem ba ci digg ëttub ba dool la di ko fa tëgg tooñ nga buur te nga buur moom xas di suñ tubaa danaa wax ne fonkal leen ma sama xas ndax dafa mel ne sama yàpp yaram laa dagg di leen jox ci suñ tubaa waaw fonkal leen ma ko ndax mbooleem lim daj ci diggante ak boromam hmm? tukki beeg lépp amul lu doon dugal gën ko dugaloon ca yar ma dugal gën ko dugaloon ca puur ba boole gën ko booloon dendewee ak nag wi amul lu ci doon karaama ci moom hmm. waaye neen li doon sama karaama muy xasida yi karaamati xatuyati lim li lim amee ci yàlla ci la ko amee lim amee ci yonent bi ci la ko amee hmm. moo bi mu ko bindee ba pare suñ borom moo ko jox ndigalal wutal ñu koy jàng hmm. suñ ma sàmba mbàkke moom la woo ne ko demal nga tànnal may jàngkat suñ ma sàmba indi jàngkat ba ndikkee sëñ bee génne ña ci bokkut boole ci ñu ci bokk mm-hmm. daal na ngeen yëkkatil ma xasida ñu koy daaj mm-hmm. sëñ Masamba air boobu sëñ Tuubaa la ko dégg ndax suñ Tuubaa moo daan jël kaala takk ko ci dënd bi mm-hmm. ba mu dëgër muy baagante di jàng xasida yi léegi sëñ Masamba dégg yooyu daaj di ko daajaat mu ne ko fu ngeen déggee lii mu ne ko jëmm ju baax ci boqaatul mubaarak daan gis muy muy baagante di jàng xasida mu ne ko loolu de maa ngi ko dégg Sëriñ Tuubaa ne ko loolu maa ko dégg ci malaaka yi muqarrab bi ñu koy wayantoo foofa hmm? muy muy xës da daaju mawaahibu bi nga xamante Sëriñ Tuubaa jox na ko ndigal mu tànn ñu hmm. moo moo jox suñ Sëriñ Tuubaa ndigal ko tànnal ñu koy yëkkati ndax denc ko ciy gaal taxul mu jóg hmm. fekkoon ne maanaam dañ ko denc ci gaal rek ku dem Tuubaa doo gis xës yi kon du tasaaroo nii nga mën a dem fii ba Amérique di fa daanal ay tubaab yoo xam ne xamul li ngay wax. Mhm. amaan nañu jaare ci tuub ba xam sëriñ bi xam yonent bi dëgg-dëgg. loolu kon loolu ko suñu borom joxoon digal foofu la nekk waaye ñi ko taa ñi mu taan ñu koy jàng da am ñoo xamante ni danoo yàkkamti. Mhm. boo yàkkamte rek sëñ bi danaan dandul. Mhm. pousse keneen. pousse keneen dëgg la de. lii yàkkamti gi mooy da ngay jàng di jàng di jàng commencé ci njàng toog feranku laay di sell maam booy commencé jàng la ngay jublu mooy jaamu yàlla. liggéey la ko suñ tubaab. waaw boo demee ba ci biir folklore bi bari nga gis xaalis be comme ñi ñiy tëgg tabala yi nga commencé bàyyi xës yi na nga daan toog di jàng ferenkulaay day mm-hmm. mujj ay tabala ngay tëgg ja jóge ci tabala dem ci farwaay mm-hmm. loolu lépp la koy la koy la ko waral mooy yàkkamti ak bëgg xaalis bëgg bëgg bës mm-hmm. ñàkk xam nag xës yi moo ko waral dëgg la surtout nag bës laaj fal bës moom léegi yàq na dëkk bi moom Serigne Touba yow yow danaa bëgg bës yow waaw moom bës jawa lu nekk yow mun xam naa loolu te yow bës ana la lay jaww jamono yow te te moom du dara moom. waaw man de ñi nga xamante TikTok bi yaa ngi koy gis fan yii ñi nga xamante ne amul bës na moom. ña ngay wuti seen bopp moom yàlla def na ko moom. waaw yaakaar da man bës sax moo xamul ma ko mën a tekkee. bu dëgg si yàlla man fi mu toll nii li li bës bi dàq ci bës yi. Mm. mooy bës fexe ba sëñ Tuubaa reconnaître la rek. te man sax jàpp naa ne bu fekkee maanaam man bës bi nga xamante ni moom laa bëgg moom. mooy bësam maanaam sëñ Tuubaa man yëg ne man maa ngi jàng xasida yi mu nangul te rafet naa ci njort. bës boobu daw dàq ko moom. bës boobu laa bëgg man man bari bari pexe moom juba ko gën. dëgg la ndax xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga problème bi mooy. Mhm. fi mu toll nii wax dëgg si yàlla li coow li bari bari bari bari bari bari bari bari. Mhm. ak mboolem man lu waay mën a am man. Mhm. lu man di mel. barke Seydina Muhammad boo ma waxoon kaay ma jox la alal ji ma am ay milliards. nga jox ma yow li ne ci yow muy njàngum xasida damay lànk bu tëdd ci naaj bi. ñaata. barke ak loo mën a jox ci kaw suuf. billaahi lu ma waay mën a jox ci kaw suuf xës dayee ma ko gën a ay milliards laa la wax ndax xam nga lan la ah, man damay tedd fii ko ko xam waaw du ma ko jëndee nga li ah, xaalis daaw loolu wax lu am solo un milliard tey kuñ ko jox yow la wax tey jii wallahi azim mbooleem tey ji ki ëpp xaalis ci àddina bi bu ne woon moom mu jox ma lim am man ma jox ko jàng xasida yi man dootuma mën a dara man maanaam du ma nekk man boog damaa munul ne ci kaw suuf ñu naan ab jànkat la woon doonatu ko man loolu laa mënut a dundee ci kaw suuf man. xaslu si maanaam xaslu sa bopp la waaye. da am laaj ci kanamu sëriñ bi ndax li ko waral mooy moom mi la tànn dem ba ci askan mu tànn ci kenn ngir ngay jàng. waaw ah. ko xas xasaayitam mhm. yi. kook moom moo la am am embauché. ne lu man di xew rek moom bu ñëpp ñëwit moom day ñëw day ñëw ci saayir di ñëw ci baatin moom ndax moo la am embauché. Mhm. waaw te embauchement bi yàlla moom du saabo ñëw ma leeru ndax Fabatine mi ngi koy wax Fabatine maa ngi koy dugal ci TikTok bi gars yi ne commentaire yi ñu ñaa ngi wax wax yu mm. débordé yoo xamante ni naa ñàkk ci li wax ci kaw ci émission bi nga parlé li ko waral mooy mm. ñoom dañoo déggut fa muy wax mm. waaye ku toll ni Sëñ Tuubaa ak lim am digganteem ak borom mm-hmm. ak lim ko jaral mm-hmm. mu am ko ci xasida yi nga xamante ni doona damay wax ne Sëñ Tuubaa bindut ay fooy kese mm-hmm. ay roo la bind mm-hmm. ndax de nit dana jàng xasida Jaalibatul Maraqib di ko jàng ay lim mm-hmm. ba am xasida gi nu mu ko def day soppiku jëmm tàbbi ci moom man ba ma ko doon durusee noon comme ni nga koy defee suñ dajee ñun ñaar lay tax ñu xam ne ku ci nag yaa ngi durus xasida gi xasida gi day feeñ ci yow kon kon kon li tax ma a sëriñ bi bindut ay fooy ay roo la bind noonu la demee léegi nag bu fekkee ne moom am na lim am ci yàlla ak yonent bi mhm. mu jaare ci xasida yi mhm. ndax wax na ci saana ilaahi bi duna jaati nee na sama benn sama benn bayit képp mhm. nee na faw xanam mboolem bind gaa yi baax ñi fi daan jaar di bind ñëpp kenn tollu ko ci lu te dee dee ko ci dab Sëñ Tuubaa moom xam na ne lim bind kenn mënta bind lu nu yi wa sabaat malaayikati baax yi nee na buy bind aras day jaay kursi di jaay yonent bi bëgg yàlla bëgg كان مست بين لمنون كان مست نيمي بين بيند سيما ورا عصري واو ند الله في يدي كوكو يالا كو غرو ولا ولا يالا موم لونا القران موم لونا خسيد موم لونا ادنا اك الاخره ملكني الدنيا وقرا سما ما حين ولختار محمد موم لونا ادنا اك الاخره وجه هل يبالي قال ملكني قران تملك يد بانني خل وحب وقدم لكن لولا مو ام تي ديغنت مك بروم سون بروم جوخ نديغال مو تان نيوكو يكتي ku yëkkati xasaayit du sag mbaax du sag njàmbaar du sa mm-hmm. mm-hmm. liggéey waajur baaxuk Sëñ Tuubaa la moo tax mu boole la ci mm-hmm. buñ ko ndax moom mukk boo ci nekkee nag moom mi la tànn nga koy yëkkati faw dalay joxi teraanga ma ko wax benn xaritu waxtaan kat ma ne ko boo demee ba digg géej nga ko fay yëkkati yàlla seeral na ne su la doomu aadama yi tëralut malaaka yi teral la mbaa jinne ndax Sëñ Tuubaa am na taalibe yi malaaka yi am na taalibe jinne waaw boo demee ba digg géej di ko fa jàng ñu la fay teral kon ji mënta ñàkk waaye li tax moom mu waxee ko ni ñu ko ma na na ko waxee la waaye noonu ma ko noonu am lu ci bëri ci ñu jàng du ko jënd mm-hmm. waaw sëriñ bi mooy tàggat doomu aadama yi mm-hmm. li tax ma ne la sëriñ bi embauché mm-hmm. moom moo lay fayal boppam danee weesu naa nit ñi weesu lu ci loxo nit ñi dégg ma borom nit ñi borom ji yaa ngi yëngu leneen du si jàng ne waaw xam nga maa ngi koy wax démb mane ñu bari da nay gis ma nekk ci ci xalima gi mbirum mbind meeg yooyu. Mm-hmm. ñu naan ma xëy na xanaa da ngaa bàyyi njàng ma ne leen déedéet ndax jàngkat xasida bu ne. Mm-hmm. soo doonee ndaw. nekk ci xes de sa yite yëpp doon xes ba yenn at yi mhm. te mënoo cee def ak dindi mhm. war ngaa xoolaal sa bopp dëgg te caaxaane woon sunu ndaw mhm. yàlla dimbale nu itam xes de dañ ci dañ ci faj aajo xëy na nag alxuraan mooy xasida yi xasida mooy ba tax na lu ci ëpp euh, maanaam sunu sunu métier lu ci ëpp mën naan ne léegi euh, mbirum mbirum mbind mi la lasraar waaw dañ ko boolee xasida waaye nag sunu lépp xasida yi waaw xasida daal suñu lépp ci la nekk. waaw waaye nag ñoom ñaar mën noo ànd. Mm-hmm. ndax boo boo jàngee xasida ba ba ñaq. loo mm-hmm. ñaan suñu borom def. la jox dëgg la kon jàngatu xasida boo gis rek war naa mën a doon ñaankat. ndeysaan waaw ndax lu mu wax. mooy waaw kay te ñaan gu nangu la. Mm-hmm. nga li ngay bind ci alxuraan di ñaan ngir mu nangu. fekkul xasida yi xasida daa doon ñaan gu nangu. ay wajaxal defal wajaxal nangam wajaxal nangam defal nangam defal nangam. loolu boo jàngee ba sa dënd tàng loo ñaan suñu borom def. waaw kon te kàddu gu mujj rek maam nga yëkkatee ko xasida borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom tuuba borom Mustafa xayrul xadimi sëriñ bu mag bi borom jumaa ji borom màggal gi borom kaala gi mudu mbakke baari xaadimul rasul si ahmadu bamba xaadimul xadimi xayrul xadimi seyxuna al xadimi si ahmadu bamba mudu mbakke baari xaadimul rasul sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba sëriñ tuuba def leen ñu màggal baay sëriñ saalihu jàmbaar ja sëriñ bi yaa julli tundu jeewal sëriñ bi yaa julli birom ndar julli galwa julli baafali julli mayomba julli gabon julli limbarwali julli karambasa julli Kabla-Bisa julli Congo-Belsi julli Cameroun julli île Buruki julli Banona julli Conakry julli Girigiri julli Matadi julli Fuluba julli Kintina julli Lomé julli Assamé julli Gabon julli Sanosi julli ca julli Dakar julli Ndar julli Kokki julli Ngolo julli Sarsara julli Jiyawal Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba Serigne Touba jàmbaar def leen ñu màggal Baay Sëriñ Saliou jàmbaar jëf jërëjëf incha allah mujj rek ngay nuyoo waaw di sant bu baax rek xanaa wax dëgg yàlla hmm. di la sant bu baax ci émission bu am solo bi ziyaare waay Sëriñ Abdou moom itam njàng moom solo bi ziyaare baax techniciens yi wax dëgg ay jàmbaar lan ñu leen di nuyu di leen ziyaare baax a baax hmm. waaye di ziyaare mboolem kuy suivre télé bi Wassare TV ñu ngi ñaan Sëñ Tuubaa mi nga xamante ni mm-hmm. moo amuk fay mm-hmm. te am ndimbal mm-hmm. yàlla na leen teg loxo ba télé bi egg foo foo xamante ni mboolem ci adduna bi ñëpp di ko siifur amiin allahumma amiin mboolem télé yi ngay dégg ci àdduna bi daal yàlla na ci bii doon pee darajee Sëñ Tuubaa darajee xes yi am nañ mbégte baax nag di santaat baax soppe yi nga xamante ni wax yàlla ñoom it kenn amul seen fay ndax damay faral di wax ne ki la bëgg rek moo la moo la sonal te goomu bëgg bu ne sungu fa si yëg moo koy faj mm-hmm. wax dëgg yàlla ñoom bu fekkee ne maanaam te ji am am la rek wala noo mel mm-hmm. taxul ñu jàppal waaye sëriñ bi nga xamante ni ci nga nekk mm-hmm. sa lépp nga nga jox ko ko te ñoom bëggun ku Sëriñ Tuubaa wallaahi ah, li Sëriñ Abdou wax ne bu ma xëyoon bàyyi Sëriñ Tuubaa ñëpp bàyyi ma wallaahi dëgg la waaw kon ku bu la jàppee rek Sëriñ Tuubaa tax ñu jàpp la waaye ñu ngi leen di sant baax a baax a baax mm-hmm. wax yàlla taxawaay bi am na solo lool di leen jaajëfal nan nan siifar bi nag topp baax a baax a baax incha allah waaw lool incha allah Sëriñ Tuubaa jooy Sëriñ Saaliw borom xel kom jaaga jaarama sëriñ bu xal bu gaaw ma jooy sëriñ Saaliw borom burul borom jàpp ndal xabaana mooy waaja daa digle ñu jaamu yàlla te naan sarax fi tuubal bur yàlla ko di siñ moom Seex Bamba moo bëgg Seex Bamba te gëm yonen ba moo nuru Seex Bamba te jëf ja ak wax ja sëriñ Saaliw waa Njaxate ko meñ ñooy mi jaay jaam sëriñ moo daa wax naan man ak yéen ñooy ànd su ma demee ba gisatuma leen damay taxaw xaar leen su ma taxawee leen gisuma damay wàññiku jël si leen ci sëriñ saaliw mbakke mi sëriñ saaliw bisu demam nga la addina bi yépp bokku di rëb rëbi ko ja gis ma ngay jooy ko naan noppil muy gën a te naa ñun de xamunu fu nuy jëleeti borom jàpp ndal xabaana jumaay Tuubaa jooy na sëriñ saaliw njàpp ndal xabaanaan la gan wa dookaan jooy nanu sëriñ saaliw daara yi jooy nañu sëriñ saaliw alimul xabir jooy na sëriñ saaliw ña doon tawaaf ca makka demuk sëriñ saaliw mbakke gi fële leen fekk ña ngay war kaxbatu rasuulullaahi te naan ñun de xamuñu fu ñuy jëlee ci borom ndal xabaan murit tiijaan xaadir walaayeen ñépp a maase sëriñ saaliw borom jàppandal xabaanaam xanaa ku ci jooy jëmam jalaay jooy way ku ci bëtam tooy xam leen ne war naam dongam bu yalwaan daana racaaxaan daaram ya ñoo daan seen ñam ya neex na kuwe sufi joy man dana joy jooy woy sama yaay booy Salim Mbacké demna naam li xaadati wa wal masalim biday wal gis wa inni sri Salim Sri Salim yo sab donga du yalwan ndax dangay ñawlu ay tergaal dal di leen séddale Salim bakke demna ay sëriñ Saliou Mbacke dem na di hmm. iya, dan rahmatullah badi baddi di ngeen jëf kàddu gu mujj rek waw sunu kaddu gu mujj xana di ziaré bu baax yow mi sëñ Xaadim nga xamanteni wax dëgg si yàlla émission bi sa borom ci yow lako jaralé mu jappandal lol di ñaanal émission bi yalla na bok ci émission yi sëñ touba tanal bopam allahumma amin allahumma iya, yalla na kawé lol di ñaanal diko ñaanal télé bi hmm. ak wa kër gi hmm di ñaanal gudd gi fan ak wër gu yaram techniciens ñu ngi leen ciaré bu baax gis nañ ba ba légui ñi sonu ci ngir lepp rafet te tubaarkàlla wax gis yalla lepp rafet na di siyaare bu sama naataangoo sëñ Alaaji Fall mom ku bax la ku ñak ñaan la ma ngi koy ñaanal bax sama borom yëkëti ko ci barki cheikhul khadim ndax ñun non rek la wara démé wax dëgg yalla yàlla ñun dañoo bokk lepp no bokk luñ mënta séddo waaw bëggante mom ñun la war ñun no wara bëggante lool no ngi saare bax sunu wayjur Eh, sëriñ dam jam nung nu ngi koy siyaare sama yaay soxna Fatou Ndiaye Pastef maa mhm. ngi koy siyaare bu baax a baax mhm. ah di siyaare waa daayira Muxaddamatul sama daayira soppe ba nga fa Touba ma di siyaare bu whatsapp bi yëpp ñoo ngi siyaare ñëpp rek bàyyiñu kenn di ñaanal liñ liñ fi jàng rek yàlla na ci daje ngërëm sëriñ Tuubaa wa axiru ham alhamdulillahi rabbil alamin jërëjëf koy siyaar bu baax a baax faama kum faama ndeysaan maa ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax baax kenn si mu dëkk ba mbuur ndeysaan ñu dema travail yu bari ndeysaan démb kontaan naa lool lool ndax émission yi ñu def loolu la seen mbégte lool ndeysaan kon maa ngi koy siyaar bu baax mbokk yi kon dañ leen indiloon ci émission cant gi kon bii di ñëw incha allah dinañ dara yeneen daama yoo xamante ne wala gisee incha allah dinañ kontaan ñu ak yéen ba jëm di fees wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa innaka la ala xuluqin adimin وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول الله يا حبيب الله يا خير خلق الله إمام البرايا كسب سيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وتنبي نبيا منتقى المنير ينير قلب كل مستنير أخمدنا المختار لا يباهى عند الذي بالبرايا باهى